tijaani sama waay la jamiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub jërë ngeen jëf faramaare nii trop content et trop fier de vous amuñu seen fay yàlla mu yor fay yàlla la fenn boppam album bi génn na le 6 octobre bi mu génnee le 6 octobre yéen faramaare nii daw ngeen jënd ji ko fi nga xam ne mooy Fnac Amazon ak Deezer waaye nag tubarkàlla ak ci yeneen plateforme yi ñu doon à travers le monde ba fii may wax ak yéen album bi sori na ci wàllu vente ba ñi ngi à la tête président Wally Ballago Seck son excellence ñi ngi à la tête à la boo ko déggee mooy génn nga ci rayon yi bi di la boolee ci rayon yi say fan si mënuñoo julli ci yow loo ko cinq CD par jour waaye dem nga ba tubaab bi xam na ni xajatoo ci ay rayon ndax da ngay jot ci ay précommande sur place plus de cent CD par jour tubaab bi jël ay responsabilité xam ne kii du ay caaxaan xam ne kii ndaaral la c' est le roi de la musique africaine sa majesté président son excellence Wally Ballago Seck tubaab bi jël ay engagement am yóbbu ko à la tête bi yóbbu à moo nekk deuxième position kon nag yaakaar naa ne Faramareen bi li ngi doon ñaan yàlla mi ngi xëy neex li ngi doon ñaan yàlla ñi ngi koy séen li ki des nag mooy ñu buddi ko projet bi bi muy door dama ñëw na focus ñu doxaat ba yàgg ma ne un CD un ñu doxaat ba yàgg ma ne précommande waaye fii ma wax ak yooyu yëpp romb na fi coow li toll ak fi liggéey bi toll mooy ñu buddi ko dañ koy buddi ndax mi ngi ñuy séen affaire baa ngi nii ñu dakkarloo mi ngi ci kanam ndax ñi ngi à la tête li ci des bareetu nañ ko buddi nañ ko buddi nañ parce que Ouais, D'accord. Pascal lii lii mooy rayon tey album yi nga xam ne tey day génn mhm. au international artistes yi nga xam ne tey ñoo ngi ñoom ñëpp fi lañ. Pascal ni ma la ko waxee léegi ci bunt bi fii mooy réew fii bépp artiste africain européen américain nga génne CD fii ngay nekk te boo nekkee fii amuñu droit jaayal la lu ëpp 5 CD par jour mais topp mu wax la bu fii ci la bokk amuñu droit jaayal la plus de 5 CD par jour mais xam nga la mooy problème bi suñ demee ba xam ne àddinaa la soxla àddinaa la bëgg àddinaay daw jim ci yow dañ lay yóbbu à tet tête nañ dem ma yóbbu rek à la tête nag jeex na fii nag mooy alaakat alaakat nag boo fi yi bi ma sama waay la jàmm ñal jaara busub wala man sa jaara